ak ci yeneen fànn yi nga xamante ne yàlla may na ko te mu xam ko surtout olof bi nga xamante ne ni mu ngi koy gën a souligner pour nit ñi mun see jàngat bu baax a baax a baax ak chronique yu may def aussi tamit euh, si télévision yi si site internet fépp tey nag moom lañ dalal fii ci euh, Dakar Plus euh, laataa ñuy dugg moom si waxtaan bi rek dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yu seetaan fii ci Dakar Plus saa wolof maa lay nuyu di la bàyyi nga nga nuyoog mbokk internet yu lay seetaan fii lay fay di ci Dakar di ñaan borom bi mu yaatal suñu dënn leeral suñuy làmmiñ ba lu wax rek ñu mën cee jëriñ jëriñ bismillah saa tey euh, fu ñuy njëkk a dugg ak yow rek mooy actualité bi nga xamante ne nii xew na Sénégal euh, ginnaaw bi nga xamante ne nii déggoon nañ fi benn journaliste muy Madiambal Diagne annoncé ko ne Ousmane Sonko dina génn jour bu ko njëkk a annoncé jour boobu génnut mais après ñu annoncé waat ko ne dina génn après Ousmane Sonko génn nan nga jàngatee loolu noonu sorti boobu. bon loolu évidence la parce que tamit nit ki koo xam ne yaa ngi ko tëj ba pare nga dem fotelu amnistie te amnistie bu paree euh, lu mu fay defati am na am nga six jours pour euh, maanaam li ñuy wax promu son promulgation xam nga publier ko journal officiel ci mën a am mooy mënoo koo bàyyi mënoo koo euh, wëy di téye foofu beneen bi mooy boo ko téye woon tey mënut a weesu. samedi tay bi wala wala wala wala démb vendredi démb mënu koo weesu lu moom lan moo arrangé Macky Sall maanaam bu ko mënoon a teel a génne avant boobu da koy da koy man xam nga dama koy faral doon wax ma ne man saa wolof Ousmane Sonko ñu bàyyi woon ko vendredi samedi laa doon gën a souhaité ci booba xalaatu moon sax jeudi bi ak yu demee noonu mm. mais jeudi bi mooy vendredi rek parce que boo ko jaaree tey ci atu jullit yi. Mhm. ñu ngi ko def ci parce que kañ la génn après avant minuit. Mhm. wala ca maanaam ñun 19h fekk na àjjuma bi dugg. Mhm. loolu da nga cay gisee ne ni ko sama xarit bi Fallou Sarr di waxee. Ousmane Sonko léppam ban bés lañ ko jàpp. bisu yowmal asura nga dem julli ji. tombeek julli ji ba ñëw. jàpp la. ko bàyyi àjjuma ji njëkk ci koor gi. te bis boobu ñu ko jàpp da nga ciy gis ay xew-xew da ci am ak yu demee noonu. Mhm. da gis ne suñ borom dafa dafa barkeel mbiram. Mhm. Euh, suñ borom daf ci jox Sénégal exemple. Mhm. tey mën naa ne xale yi juddoogut wala xale yi màgg nii war a gimmi jëm kanam ñoom ñëpp am nañ sens parce que am nañ royukaay. pas seulement Ousmane Sonko rek sax parce que nañ mën nañ ne mooy ndeyu mbi liggéey mais le candidat Diomaye tamit ak si taxawaayam mais même gone yi ñi nga xam ne dañ leen a jàpp ci kaso bi man ñooñu sax ci laay gën a bëgg a wax ni benn Madiambal bu bind wala li nga wax tombe na wala man li ma ko yàgg a rek nga li ñuy wax un montre cassé maanaam raison que deux fois par jour da ciy dal rek pour wax dëgg di évidence la lu ñëpp xam mais liñ ci gën a mën a jàng jàngat muy bind la bu fi des képp ku mën a bind wala nga mën a xalaat ba dalal tàmbali di ci xalaat ndaxte les générations futures en tout cas Afrique wala Sénégal am nañu ay royukaay du ma wax rek sax euh, boo day mbili ki ko incarné mais da ngay xool gone yi ñu jàpp tel que am di Moustapha Mbacké Omar Bamba Diop nit ñooñu nga xam dañ leen jàpp ay nit ñu màgg defuñu waxuñu ñu xëy sosal leen feneen leen tëj leen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi taxaw waroon a wax surtout doon ay kilifa waroon a wax te lii parce que fekkee ne lii ñaaw na war ci wax te waxoo ci ak ñi nga xam ne maanaam ñi ngi ci doon wax seen xalaat lu ne mënoon lañ mënoon leen cee fekk mais malgré loolu ngi teew teew ñu toog di éclairer loolu boo ko mu gënee mënee wax ay tel ay pap Alé Niang Cheikh Bara Ndiaye hmm, mën nga ne sëñ Ahmadou Rafaay pas wax ci affaire bu directement mais xutba yi muy def saa su nekk da ngay gis ne kii mi ngi def li mu war a def même ñi nga xam ne ñi ngi doon tijji seen ay jumaa di ci xutba te yàlla tax ñooñu ñu nga leen ci rendre hommage mais ay Joro Maxu Mandela ay Sanjoogu Assane Mesere ah ñooñu ñëpp ay kii nga jël yeneen yi nit yu gin ginnaaw bi lañ leen xam tel que Lamiñu Daaru ay Oustaz Thiep ah, ay borom borom réew mi bëgguma wax turam sama voilà ñu nga xam ne xel mu sell la am doon éclairé te yooyu ñu def moo éclairé nit yi jóg am ci dogg gii ñu ci dogg xam nga nga mën a jël ku mel ni dàmbooj xoolal lum ci si biir ah sa oto ñu brossé kay wal nga xool loolu ba daam mënoon cee faatu kero te moo tax yàlla rek a jara ragal sànq rek maa ngi koy wax jenn waay jooj mi ma kii ñu doon liggéey ci yeneen mais avec Euh, ni may doon traité ma ma ma xëy dagg ci affaire yi quoi pour wane ne yàlla rek moo jar a ragal yàlla rek a jar a yaakaar leneen lu dul moom neen la suñ borom rek moo jar a yaakaar leneen lu dul moom neen la te loolu boo xoolee ku mel ni Ousmane Sonko da koy daal gis bam ba mu jeex ay nit do ngi doon wax non kii cuune la lii bu doon moom mënoon naa wax lii mënoon naa communiquer nii nangam nangam mais yow nekkoo situation bi ko nekk nga man dama ci doon xam ñoo xam ne da ngay wax ñu ne la lii la nga ne leen lii la ñoom sax dañ ci dafay dem ba mbir mi maanaam en gi jamoon ba am diggante nga xam dañuy dem ba sax dañ lay mujj en le fait que nga am sa xalaat ne lii la te pourtant rapport yu rafet ngeen amoon wuute xalaat ci yu demee noonu maanaam nga nga nga wéet ci jamono boobu bi may wax nii nga xam ne au début mais après na ko fur et ñuy gën a dem parce que suñ borom rek a fi nekk suñ borom moo ne ragal leen ba ma xamal leen képp ku ko ragal mu xamal la lu keneen xamut nit mën naa jàng ba laxas di yu yitul jeex te suñ borom bu deful barke ci moom la mu xam du jariñ dara wala sax su ko waxee nit ñi ne accam nit ki mën naa bañ a am yenn études yi poussé yi mais nga ragal yàlla suñ borom wërsëgal la nga wax dara mbir loo xam ne kenn du ko dindi man bi ñu daree jàngat ci xew xew dëkk bi mën naa ne un an bi suñ borom dimbale na ma amul dara lu ma analyser te loolu dama koy sant yàlla keroog dama toog ba mu yàgg ma koy sant suñ borom surtout démb amul dara lu ma mas a analyser ba lii la la contraire génn ba démb démb bi may euh, mujj wax ci kaaw PDS ak ñi leen ki jàpp ba mën naa leen du mujj fen ñi ma toogal démb ay dara laa toogal ni dof mais si li ñuy wax dama ne ko Ahmed mu ne ma ne ko danañ dem ci élection incha allahu te Diomaye dana ko gañee PDS Macky da leen di fooye comme jàngat mais jàngat bi indi woon naa ko laata parce que fi ñu toll nii match buñ joué la ba pare. Mhm. maanaam fi ne nii lii leer leer na. Mhm. lii leer leer na dama leen a yàgg a wax ne Macky da leen fooyee Macky benn seule préoccupation la am mooy son amnistie. d'accord def na li nga xam ne mboolem xeeti ñaaw ñaaw lu mën a def luy toroxal waa Pastef. giiñ leen lu nekk yërëmu ci kenn yërmande Macky amu ko bu ma kenn wax ne Macky dafa am yërmande mënuma jël ku saa yu nekk ma ci ma koy jël exemple ku mel ne Coro Maxu Mandela ni mu nekkoon xat-xat wan lor maanaam ba ca nopp ya ni ko wolof di waxe biir ba ca nopp ya nga jàpp ko ci anam boobu kooku bu amoon yërmande loolu du am bi woo nga indi ko ñu tëral ko ci civière kooku bu amoon yërmande loolu du am kooku nan ngam mën a demee ba benn instant mu yaru mu mu mujj yërëm son pire ennemi son ennemi jure ki mu jàppee ne ennemi la muy Ousmane Sonko mu jékki-jékki dem di ci yërmaan euh, ne da fa am ci moom yërmaane wala da koy def pour Sénégal def ko pour Sénégal boppam la ko def léegi nag li mu doon def mooy xamoon na ne Pastef mën na cee am intérêt muy son amnistie Pastef noon na ko voté dégg naa Ousmane Sonko ne moo waxoon ma mais man loolu bis bu ko Pastef defoon njuumte la. que Ousmane Sonko. mais moom dafa ak nu ñu mënoon a doxalee. su ko Pastef voté woon njuumte la dama koy waxaat fii. nan la nekkee li mu doonee njuumte mooy kan moo ko bëgg. Macky Sall gañe ko ak ku mën a tëdd ci kaso bi euh, diggante bi ñaata la ku tëdd 6 mois wala 8 mois wa danañ ma wax nag ni man man maa tëddut kaso wala nangam nangam mais dama ne man li ma gëm mooy ñi génn kaso lan lañ wax non à l'amnistie Pape Ablaye Touré ak keneen ak keneen kan kan kan moo gën a sibir ñu torturé ko wala keneen ak keneen mais nit du la toroxal ba yegg fenn fi mu des un mois képp mais bu la rayul ci kaso bi tamit euh, génne la rek la mën a def kon le résultat reste le même. est-ce que jàpp na tamit moom Sonko dafa leen jàpp foofu parce que moom dégg nga ko ci discours am ne. moom fu mu nekkoon mu ngi si jàmm parce que suite lañ ko jox am na des climatiseurs nangam nangam expliqué xam na ne am na ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi si prison yi ñoom condition yu nekkee yu nekkee mara day taal est ce que nekkul loolu moo taxoon bu fekkente ne mu wax mu waxee noonu comme ça. non loolu danaa ko nangul xam nga moom yërmandeem la am yërëm leen ak yooyu mais man xalaat bi ma ci am. Mhm. xalaatu Sonko mënu koo dindi. man loolu xalaatu saa wolof la loolu xalaatu Sonko la. mais xalaatu saa wolof mooy bu ko Pastef defoon. njuumte la lu koy topp mën na ko topp lu yàggul ak yu demee noonu mais nit mën na doon njuumte te njuumte lay doon wax dëgg yàllaam nii ñu def génn te voté wuñu abstenir wuñu voté wuñu wii ba pare génn ci à tête haute loolu résultat boobu ku bëggoon a xool leneen mënul woon a yem ak résultat wu bu fekkoon ne ñoo voté parce que tamit say noon lii leen arrangé wala li leen neex jour débat bi lan moo fa am boo dégloo debaa bi da nga xam xam nga nag booba situation bi ñëwagul woon comme ñu demee nu mën na xalaatee ne mënoon na jur leneen ak leneen ak leneen mais man xalaat boobu jamono boobu bi mu xalaatee xalaat lu contraire ak lim xalaat laa am kon bu ñëwaatee ba démb fi salaat même xalaat bu contraire ak li mu xalaat laa am ba tey nii ñu def nii mooy li parce que Macky Sall mi ngi 83 députés nga voté ko ak mu bañ nga bañ koo voté teewul moom daf koy voté parce que amnistie bi pour moom la pour boppam la dégg nga amnistie bi pour boppam la ban njariñ la nekk nga koy voté di ci taq te man cee euh, set énergie boobu nga naroon a def pour dem voté mais nga def ko ci yeneen tey histoire xam nga tey l'histoire contemporaine ak histoire suñu demoon ba fii ak vingt cinq ans wala cinquante ans du bokk même bu dee dangaa dem tey voté woon ko bu ñu demaatee ba vingt cinq ans cent ans soo koy bind bindee ko nii mu mel mooy gën a rafet loolu kon bu ko waxee du tee ma ne loolu bu ko defoon daa juum heureusement bi nga xamee ne defu ko li ma xalaat la la li mu def ak li ma xalaat dëppoo loolu ci laay sant. saa fa ne fu may duggaat yoo rek mooy euh, gis nga démb bu Ousmane Sonko di génne. Hmm. moom ak Bassirou Diomaye Faye. Hmm. ñëpp dañuy yaakaar ñoom ñoo bokk oto. mais dafa mel ni dañoo tëral benn stratégie boo xamante ne ni Bassirou mën na génn comme comme moom lañ jiital mu nekk candidat Ousmane Sonko après jaar foofu dem benn hôtel nekk foofu ba démb après bi ñu defee conférence de presse nan nga gisee loolu noonu ak mbooloo bi nga xamante ne ñu génnee topp nañ leen euh, te bu Sénégalais yëpp gis image yooyu noonu nan nga jàngatee mbir boobu. non mbooloo bi moom li ko waral jomi Ousmane Sonko moo ko waral parce que nag euh, xale Sénégalais dañoo am jom garab bu la sutul du la may ker Ousmane lu ëpp lii sax far te ci kanam lay gën a xam li mu defal Sénégal maanaam mérite bi mu am ci Sénégal Sénégal a koy fay waaye li koy fay desul man dama gëm ne Sénégal dina fay Ousmane Sonko ba wis ko doom bu ñu ñëwee ci côté génn bi nag man pour man bon heureusement biñ ko defee noonu parce que suñu àndoon wala bu Ousmane Sonko génnoon ci guddi gi mën naa appi loxo foofu stratégie la leer na ba pare jaratul jàngat ndax moo jàngat boppam léegi nag bu dee comportement bi Ousmane ko am démb. xam nga yàgg naa ko wax dama ne leen Macky Sall dafa tànn Amadou Ba ba pare yëkkatiwu ko maanaam lu koy doyee di rek lay lay lay def xam nga ku ñu jël ngay dem di wax ak say ñoñ naan leen tànn naa waaye ñi ma tànn diwa ci tane tane jàngoro jógu ci contrairement ak euh, boobu sax maa ngi ko doon comparé ak Wade bi muy tànn euh, Idrissa Seck. wala bi mu nekkee ak Idriss naan ñoom ñaar ay ñaari peeru Cissé lañ waaw boo boo boo bala may wax sax bala may wax sax wax xam na li ma xalaat loolu mi ngi yëkkati nit ki mhm. xam nañ ne Wade du moroomu Idi mais Idi même sax ci histoire biñ demee sax da gis day utiliser loolu contre Wade maanaam su ko saa yi wax loo xam ne nii lu doyadi la Wade lay jël teg ci kanam ki ma jàngal ki ma jàngalu caay-caay ci politique waaye buy wax lu baax danaan bi ma nee Ablaye Wade nangam nangam kon moom mu ngi ciy ab maam ni mu toll noonu lay waxee ak Ablaye Wade waaye Ablaye nam toll noonu la koy joxe nga jëlaat kaawu diggante Macky Sall Ablaye bi ñuy euh, maa ngi koy fàttaliku bi ñuy teg euh, pose pont ascenseur Padois bi bi ñuy teg première pierre bi mu doon seede ci Macky Sall naan il est modeste il ne fait pas beaucoup de bruit mais il efficace daan naa xar xaal xal xaar bi ma xal naa nga mi yëkkati mais Macky Sall lan lañ gis Macky Sall waxuma Amadou Ba waaye amul kenn ci waa këram yi koo mës a gis mu yëkkati ko wala mu kañ ko wala nangal mais dafa mel dafa allergie nit nekk ci moom am jom wala nit nekk moom am xel wala nit am fit wala ñu di la tudd ci kanamam loolu dafa am problème mais loolu ngay gisee nit ku tuuti nit ku màggul ba pare teñ teñ jox ko cër yu mag cër yu ko ëpp loolu day day feeñ ci Macky Sall mais da ngay xool Ousmane sonk li mu wan ginnaaw nga xam ne moom la ñëpp di wut xoolal Idriss Seck yàkkamtee ko taxoon na def li mu def ba mu séparé waat Ousmane Sonko yàkkamtiwul ni Idriss Seck Ousmane Sonko bu yàkkamti woon ba carte gi fi mu toll nii ba barki démp bu ko neexoon mooy nekk candidat waaw parce que stratégie yi mu tegoon maanaam jox na ko luy nekk luy tax mu nekk candidat dama ko yàgg di wax mooy dafa teg ay option grad graduellement maanaam plan yi Habib Sy la jël jox ko député parrainage député nga loolu moo gën a kii moo ko Habib rek ñoo yooyu moo ëpp sécurité mu jox ko Habib Sy mais parrainage Habib Sy candidature mooy assurer candidat bi nga xam ne parrainage la te pare parrainage su citoyen bi mën naa bañ a wóor muy bu Cheikh Tidiane Dièye dafa garanti candidature boppam moom Habib Sy garanti waale bu Cheikh Tidiane Dièye candidat wu Cheikh Tidiane Dièye ànd ak bu Habib Sy garanti candidature Diomaye Diomaye Habib Sy Cheikh seen candidat yëpp ànd garanti candidature Ousmane Sonko xam nga lu tax démb la ko leeral mais man bi ma koy leeral yaakaar naa seq nañ jotaay mu wax la ko ak keneen ak keneen maanaam ba ba barkaati démb su neexoon Ousmane ko day nekk candidat te démb wax na ne même Diomaye loolu la souhaité kon da ngay xam ne teg na stratégie boo xam ne looloo ko ci génne du kenn dama ko yàgg a wax kenn ku la mën a wax en dehors de maanaam pression populaire wala collectif bi nekk ci ginnaawam parce que loolooy dooleem parce que moo leen wan lu tax nit ñi topp ko waaye kenn ku ne le ñaanal naa ko fii wala lii tax wala nangam dèjà Macky Sall du ko ñuy ñaan faalewul nit ci réew mi boo amee kenn kum faale ci réew mi kenn la Ousmane Sonko du keneen kon loolu moo ko moo ko moo ko indiwaat ci biir léegi mu mën a am possibilité euh, falu wala ñu tabb ko candidat fal ko njiitu réew am ko taxul teewul mu wàcc ci dara te loolu maa ngi déglu Cheikh Bara Ndiaye démb mu jàngat ko jàngat bu am solo waaw ci bi muy wax que euh, ci lii parce que communication euh, li ci kàddu lu néew la li ci des yëpp posture la na ngay soloo na ngay waxee fleur bi ngay teg sa kanam micro bi ni nga koy téye même bit bi nga téye di bind même moment bi ngay jël note sax loolu dafa bokk ci communication Cheikh Bara ni mu ko jàngate rek mooy jàngat bi war joomaay ñëw na comme militant lamda bu passif ki daan nekk ci Pastef ànd ak leader waaye bi démb da ngay gis ne bi Sonko defee wolof ba pare jox joomaay mu wax ak l'international parce que loolu dañuy mottalante xam nga ci coalition bi dama koy faral di wax ne Mimi Touré euh, sens la ci maanaam suy wax dafa bari ñu muy waxal. Mimi day mën a wax sénégalais yi mais man a wax ak euh, l' international te l' international daf ci am solo pas l' international dafa am solo sax ci seen candidature wala seen politique gu bi wala nangam nangam déedéet. l' international dafay am solo si seen adversaire man a gañe seen adversaire bi ñu jàkkaarloo parce que nee naa la faalewul kenn ci réew mi kenn la fi faale te kooku fexe woon na ba tëj ko kon boo waxee l' international ni mii di waxee ak moom dafa am lu mu ciy indiwaat te dafa am ñoo xam ne seeni xel dana jiixi jaaxa ci nangam démb joom mu jox joomaay une fois mu wax ba noppi kàddu googu mu ko jox maanaam tey bu doon trône la wala siège bi wala def kon leaderu Pastef wala nangam nang dafa mel ni daf ko ko defaale démb waaw gis nañ même bu mu fekk Diomaye mu ngi toog xam nga joxoñ na moom mooy président fu mu nekk ah. koo yëkkati aussi tamit ci ci ci kii boobu. waaw non xam nga xam nga loolu moo am solo. te da nga ciy gis ñaar ñu respectante te loolu moo gën a jafe ci àdduna. Hmm. gis nga da nga gis koo xam ne leader bi soit leader lay doon du respecté ñi mun ba am Sonko lenn moo ma neex ci moom. dafa respecté ay naataangoom ay nawleem. da leen a nawloo maanaam Pastef li ko tàmbalee ci suuf ba ci kaw da ngay gis ne daf leen a nawloo respect bi mu leen jox joxu ko keneen ku dul ñoom te loolu moo am solo ñooñu ñoo la def li nga doon ku la xool ba teral la militant yi sa ginnaaw ñoo tax te sax militant bu Pastef nag sax bu ñuy wax teraanga sax ñoom ñooy teral Ousmane Sonko Ousmane Sonko sàccut alal nii ñim jàkkaar lool ba mën a euh, di financer ay nit wala di dimbale ay nit amu ko mënu ko mais ñi muy seqal ñoo ñooy jël di xañ seen bopp di ko jox pour xam ne mën na leen a génne ci lii ëllëg ñëpp jariñu kon nawloo googu mu leen nawloo ñëw jiital nit ba pare te fakastalu googu ko maanaam boot joomaay ba pare te yorut bee jënu ginnaaw joomaay it màtt ko man euh, suñ borom dafa def ne man ni Pastef doxale juste ici lu ma neex la. nan lañ doxalee maanaam maanaam ba Ousmane Sow xam man PDS laa nekkoon euh, ba sama premier vote PDS laa ko njëkk a voté muy législatif 2019 ma mosuma voté présidentielle 2019 sax voté wu ma mais législatif yi ci topp laa voté 2017 ma demaat voté laa waat 2018 bi Sonko di ñëw hôtel Pullman. fekk euh, avocat Karim yi nekkoon fa mu ñëw ngir feeñal fésal jàppale ci Karim ci laa ne ko grand yow laay parrainel donte du ma la votel wala du ma du ma la votel mais yow laay parrainel lu tax ma ne ko ah damaa xam ne parrainage bi pour seen parti yi la PDS du am problème mu parrainage kon yow laay parrain parce que man sama damay bëgg mu efficace yi weesu nii Diomaye laa parrainé de mais naru moona bu fekkoon Pastef sonaluñ leen doonu moon parrainé Diomaye man Mimi Touré la naroon a parrainé te duma ma ko voteel Diomaye laay voteel mais mii Mimi laa doon parrainel parce que yëg-yëg boobu laa am dama bëgg sama parrainage du ma fekk joomaay mu wër ma ne am na ba pare ma di ko demaat di pareneel keneen moo tax bi mu naree doon risque nag te gis nga li am moo tax ma dem parrainel Diomaye foofu da ngay gis ne man bi tànn jotee ma dem tànn Sonko 2019 jël samay moyen sama mouvement dem di ko campagnal dafa metti woon trop fi ma dëkk ak ni Idriss Seck doon def ci Touba ñu bëree bëri jël affaire yi def ko yëfu pas-pas xam nga ràññeewuñ sax ndax kii dalee ni ndax ndax kii wor la ndax kii workat la wala garmi la wala nangam nangam xooluñ loolu am na sama baay boobu dafa ma fekk fi may convaincre euh, jigéen ñeek ñooñu mais dafa ma toroxal ah yow waaye lan mooy sunko sonko nangam taanu na jaar fu ñaaw. ngay non xam nga nit ñi boobu émotion rek. ma déglu ko pare na tekk bàyyi ko ci biir mu saaga ba doyal dem yoonam. ma ñëw continuer ci yi ma nekk. bien vrai que ne troisième lañ jël ci jamono boobu. mais yu ma sant yàlla la. maanaam foofu euh, idée fa gañe woon. topp Macky topp Sonko. mais dañ ko def ak fierté mu jël PV yi dem jox seex Thioro mbooleem ku fa nekkoon manda euh, mandataire sama xaalis bopp laa la fay ak yeneen ak yeneen yoo xam ne. mooy loolu ak si yeneen yoo xam ne ay dépenses yu ñu def ak ci essence ak yu demee noonu xam nga ak yooyu yëpp mais da nga ciy pare fier kooku ma doon toroxal doon ma kii ba yegg ci di ma saaga si mois lañ doxal dafa ñëw jox ma ñaari loxo ne ma baal ma àq ndekete li nga nekkoon mooy dëgg tey kooku kenn gënu koo bëgg Ousmane Sonko tey ñooñu sax ñoo lay puus naan la demal Pastef ma ne leen non parce que man dama jàpp ne bëggatuma dugg ci parti politique benn mooy li dal ñenn ñi comme sama xarit <laughs> sëñ Maodo Dramé fi mu naan parti tënku ma ma ko déet parti nag boo boo demee jël sa xalaat joxe ko yàgg waa parti bi da ngeen mel ni genn jëmm waratoo wax eh, nu la neexee wala nangam nangam comme maa bëgg di am sama liberté di ko wax moo tax tey am na loo xam ne ba bokkoon biir Pastef du ma ko ŋaang mukk xam nga tey baa ngi wax ne li ko wax ba ne député maa leen wax ngeen votel nee naa la ak nuñ ko mënoon def njuumte la liberté boobu ma am tey te bu ma ko waxee du yàq dara ci euh, doxin wi Pastef di dox mais dañuy xam ne loolu mooy saawolof mais am na am na fu ma bëggoon mooy démb gis nañ non mais pour daaneel ci kii bi mhm. pour wan la ne li nga doon wax léegi ci biir li mu fay wax rek mooy ngor mhm. ñaari gor yu seq mbir mhm. seq ko yeneen i gor loolu moo fa feeñ demb moo fa fees Euh, beneen muy ci li may gën a naw ci Pastef mooy le fait que hmm. militants yi di ma loolu du ma du ma du ma dañ ci li ko di ko di ko di ko fésal parce que dafa bokkoon man ci sama gis-gis PDS bi ma doon bokk nga xam ne loolu amu fa woon dama ko fa doon imposer man damaa bokkoon ci ñi doon imposer loolu parce que ma ne mën nga bokk ci parti bi gën a yées mais di indi sa xalaat ay idées yu baax maanaam fexe ba soppi leen ñoom jëme leen ci lu baax mais pas ñoom ñu soppi la euh, jëmelu ci lu bon ña bon laa wax du ñëpp jëmelu ci lu Euh, ñun suñu mouvement dañ daan def alxames ju ñu nekk bala ñuy suñu basang lañuy ñuy laal soo ñëwee da ngay jël sànni ci basang ki sànni ci deux mille wala ki mën a sànni cent sànni kii sànni dix mille sànni dañ koy daan dajale di ko teg ñun référendum yi euh, PDS plateau jël nañu alal ju takk jox leen pour ñu doxal ñun nga xam ne mouvement la dañ leen daan wax bu daan laaj yenn mouvement yi di laaj naan leen Karim jox nangam ak nangam kii wu leen man am na ci ñoo xam suñ mouvement buñ ko bëggee wax ma ne leen ñu mouvement de soutien lañ lañ wax di mm-hmm. booy soutenir nit yaa koy soutenir ci sa xel ci sa xam-xam ci sa alal ci sa doole kon waroo xaar ci moom moom mu lay dimbale kon man lii nekk ci passif da yàgg yàgga dafa yàgg a nekk ci man muy xalaat boo xam ne ma bëggoon mu law fépp kon bu ko passif dee dox doxal damay xam ne ñu ngi ci voie bu baax mm-hmm. am ci boo xam ne 2019 bi ñuy dem ci waa jot na jot na jot na jot na coalition jot na mooy 2002 noonu la tuddoon am na koo xam ne moom moo yoroon tey li jante yore euh, mooy moom lañ doon wax Bruno Derneville moom ren bokkut ak ñoom ren mi ngi ci waa PUR mais Bruno Derneville boobu biñ ñëwee euh, di ko kii daf ñu tegal maanaam parti politique yi war a jàppale si coalition bi ñaata lañ war a joxe waaw yow bi jàppale si yaay jël say moyen tamit ëndaale mooy doxinu Pastef yaakaar naa su ma juumut loolu am na ci lu demoon ba dix million am na loo xam ne un million am na loo xam ne bu dee mouvement comme suñu jos yi quatre cent mille la la woon am na ci yoo xam ne bu dee ñeneen ñi dem na ba vingt mille francs ñun bi ñuy dem quatre cent mille lañ man quatre cent mille la ñu participer sama sama mouvement ci ci ci ci kii bi te pourtant ñun mais loolu bi ma koy joxee dama ko boole ak ak ak yëg sama bopp fierte même bi may jëli moyen di teg maa ngi jàkka euh, fàttaliku Derneville dane ma man de sama partie amoon naa partie bu yàgg waaye lii Sonko am nii jafe na de mais ku yabu rek bay boo nga dem ci parce que sa alal du ci dem di jeex yàgg militant yëpp ci yem da ngay cotiser ma ne ko ah waaye nag loo def lu kiiwul militant yi tamit danañ taxaw mu ne mu ne mu ne ma mais àdduna noonu noonu la militants yi dañu war a am seen xalaat Bruno Derneville maa ngi koy ziar bu baax a baax xam nga muy nit ku baax ku am solo ci réew mi euh, loolu dalaat na ma ren bi ñuy kii xamoon ci communi commission kii bi communication bi mooy pôle communication bi mhm. bi ma ci addu keroog dañ ma ci copte euh, na kii bi kiiw na caravane nationale bi ñuy toog di wax am na ci ñoo xam ne parti lañ yore am ci waajooj daf ne ci communication bi bi muy joxe xalaatam dafa wax comme ay yenn support yi bay wax ne ay t-shirt yu ñu war a jox nangam nangam ma ne ko sëñ bi waa Pastef ñoom seen ay t-shirt dañ koy jaay loolu moom kaw ma ne mën a nekk far mbeng boobu moom mbeng bi yoree logistique ku mhm. am solo boobu moom moo représenté woon El Malick Ndiaye parce que El Malick Ndiaye moo nekk ci communication bi mu ne ko ñun dañoo am boutique suñu militant yi ku bëgg tiset wala pins wala lu mu mën a nekk da ngay dem jënd loolu ci la ñuy financé kooku ne ko waaw mais mën naa am exception ci campagne yi ma ne ko sëñ bi bul sonn lii la ñuy wax loolu mooy jubbu bi leen fal suñ ko bàyyee ñoom dañuy am problème après ñun ñoo leen di jàppale si gaa war nañu indaale suñu xalaat mais loolu da nañ leen ko respecté mu doon lu ma neex te loolu mooy li leen gën a suuxatal seen parti bi ku ciy def fierté bi ngay àndal am na sama benn jigéen mun naa dafa am ay cotisation ndeysaan ay mu dajale yuñ ko joxoon muy cent mille francs eh, fi mu ko def ñu boole kook téléphone am sàcc téléphone biñ ko sàccal mat na quatre cent mille mais maa ngi ko gis mi ngi tuuri ronxañam loolu lay jaaxle cent mille yi ñu yóbbaale te mu waroon ko ëndaale ci ci ci pour parti bi man da nga ciy gis dogu goo xam ne loolu da ngay xam ne rek loolu maanaam bind la boo xam ne nii man euh, xam nga maa ngi doon waaj doon war a bindee génne ñaari téere benn téere bi dama ci doon jagleel surtout am na ci yoo xam ne nii wàllu do comme doxinu Pastef ni ñuy doxee doon dana kii lenn laaj ci mais damaa jàpp ne benn téere bi day mujju nekk yëpp histoire Pastef ak Ousmane Sonko yaakaar naa su ma féexee moom yaakaar naa dinaa ci dinaa ci dinaa ci dinaa ci dal loolu mooy li nga xam ne moom moo ci am solo lu ñu war a gën a jàngate par parti yi tamit comme dañ leen di xaar ñoom ñu euh, war a jaar ci di defar réew mi ñoom la ñuy fal nañu jéem a adopté ak doxin wi Pastef adopté wu parce que loolu moo gën a doon transparence mhm, mhm. beneen affaire bi ma la bëggoon laaj rek mooy gis nañ démb sorti Ousmane Sonko bi tamit wax na ci Amadou Ba ne Amadou Ba ñoom ñoo xam Amadou Ba parce que ñoom ñoo bokk liggéey maanaam yàlla bu bañee Sénégal dëgg dëgg dëgg dëgg na ko teg ci loxoy Amadou Ba am ñu génn nag ne warul waxee noonu parce que euh, xam nga Macky Sall moo fi nekkoon ba wax na sax moom léegi combat bi nekkul ñoom ak Macky parce que Macky Sall nee na dootu bokkaat Amadou Ba la te Amadou Ba moo gën danger Macky Sall bu wax boobu mu wax tey am ñenn ñu koy contre si loolu ban jàngal nga si am. mais bu lay wax. maanaam même bu doon stratégiquement rek même bu fekkoon ne li muy wax amut ñoom Amadou Ba mu war a nekk seen interlocuteur direct warta nekkaat ñeneen ci opposition bi mu ngi mel ni Pape Djibril Fall di jox xar bi waa Pastef nga naan lu tax mu leen di jox xar bi ñoom la war a jox xar bi te ñoom li ñuy wax dañ ko xam te li ñuy wax nag li tubaab di wax naan ce qui se conçoit conçoit bien s'annonce clairement et le pour le di arrive aisément man nag baat yi bi muy génn ci seeni làmmiñ dangay gis ne ñi ngi ci woon ñi ngi ci woon à l'aise xam ne ñii li ñuy wax li ñu xam la te nëbbantu wuñ ci te ñoom ñaar dañuy ñaari nit ñoo xam ne nga bañ leen ak nga bëgg leen dañuy xam ne duñu nit caaxaan gis nga buñ naan joomaay mooy Sonko ci lépp dañ ko niroole ci dëggu ci dëggu dañ ko niroole waaye fit dañ ko niroole tey li ñuy wax mais loolu mooy li am Amadou Ba tey nii muy def alalam ju bari ji ñu koy waxal kenn ku nekk bu ñu lay puus ci Amadou Ba sax dañ lay puus ne la boo demee am dara mais alal bu màgg gaawee juddu ba rafetul léegi nag ñu war a lijjanti nan la juddoo démb Ousmane Sonko wax nañu ni mu juddoo Diomaye ñëw confirmer ko lan nga bëggaat ku mel nii ñu ko waxee de ku mel nii kay bu ko euh, amee comme président mooy nattu yàlla di teg Sénégal moom wàcceegu ko te damaa jàpp ne yàlla moom mi ngi ñuy teggil suñuy natt loolu mooy dëgg man euh, foofu li ñu wax mooy am te dañ ko wax waxe waxin wu leer te ñoom ñi ko wax dañoo taxaw défier ñëpp maanaam Sonko da ne liggéey naa nangami at mosuma lekk fukki dërëm na ko Amadou Ba wax ko xam nangam ak nangam na ko wax joomaay ñëw sonko ne kii ma gën maanaam sonko mi wax ne mosuma lekk fukki dërëm moom moo ñu joxoon joomaay ne moo gën xam nga sonko bu waxee loolu tey da nga ci gisee ne joomaay baax na yow mën nga jàpp ne joomaay gënul sonko mën nga ko wax xalaat la wala nangam nangam yu demee noonu mais li am mooy sonko moom loolu la wax mais da nga ciy gisaane ne modesti sonko moo ko yóbbu foofu mais tamit xam ne joomaay mii nit ku baax la loolu mooy dëgg kon lii ñu ñu wax lu mel ni xarxarab xarab doj la loolu nag am na lu ci nit ñi war a xool xam nga kaawu joomaay dama jàpp ni mu nekkee solution ci sunk noonu la war a nekkee solution ci Thierno Alassane Sall noonu la war a nekkee solution ci Malick Gakou noonu la war a nekkee solution ci mboolem ku bëgg senegal man damaa mas a taxaw F24 ñu nekk réunion ma déglu ñëpp ma dégloo ñëpp noppi ma ne leen fekk dafa am ku wax ne Ablaye Wade dañ koo jëli 1999 ma jóg ma ne leen am na baat yoo xam ne bu ñu ko xasee sànni rek nit ñi dañ koy wax di ko waxaat di ko waxaat mais Wade masuñoo gis ba mu sampee partem ba 2000 élection yu mu wuute li ma gëm mooy ku ko jëli woon mu ñëw ko jëliwut mu ñëw li fi ne mooy ñooñu dañoo xam dañoo réaliste dañoo xam ne doole ji waat wàdd amoon amuñu ko ñu dem waxtaane ak moom lëkkaloo ak moom mais découragé wul woon comme niñ koy waxee wala buñ ko jëli woon du ñëw ñu koy wax di ko di ko jëmbat ci xeli nit ñi tel que Idrissa Seck wala ñeneen ak ñeneen dañ cee am profit bu ñuy tiire loolu du dëgg dañoo xamoon ne moo fi nekk ñu dem waxtaan ak moom ànd ak moom ma ne leen foofu Wade tolloon ci doole Sonko doublé na doole jooju tey ni Wade ëppe woon doole CDP garab gi ni Wade ëppale woon doole AJ ni Wade ëppee woon doole LD ni mu ëppe woon PIT ni mu ëppee woon ni mu ëppe woon tey nu ko raw la Ousmane Sonko ëppee doole Bougane noonu la ëppee doole lu ko raw la ëppee doole Moussa Diop Thierno Alassane Sall xalifa sal dugal ci ku la neex kon euh, li ñuy wax réalisme politique fu dire que ngeen dem seeti Ousmane Sonko boobu mi ngi ciy xat-xat de ñu barricadé ko ma ne leen ngeen wax ko mu tànn ci partem ku mu wóolu boobu man Guy Marius Sagna laa jëloon comme exemple mais mën na nekk sàmba Ndiaye mën na nekk keneen bu jëlee ki wóolu ngeen waxtaan ak moom moom mu tànn ki wóolu lan lañ soxla moins de deux ans lañ soxla mu jël euh, réew mi maanaam un an nangam maanaam boobu comme février bi ñu nekk mu jël ko un an mais man dama jàppoon ne février bi ñuy voté man dama jàpp ne budget bi nga xam ne moom la ñu voté ci décembre bi maanaam pour at mi président bi mën na caa jël dara président sortant kon jël doxalee élection yi février yóbbu ko ba novembre. décembre waaw voilà euh, euh, wala décembre wala wala kii novembre sax mën na nekk pour man mooy li gën nga xam ne léegi budget bi kii président bi ñëw rek euh, nouveau élu bi moom moo koy moo koy commencé. loolu ci laa waxoon moo tax ma ma waxoon ne loolu buñ ko defalee ku mel ni Guy Marius kon un an six mois lay nekk mu restaurer état de droit def séparation de pouvoir élection yu leer def bulletin unique xool suñu contrat yi revoiraat maanaam santé justice lay gën a régler parce que Sénégal problème mu justice la ñu am justice sociale justice euh, lépp su justice réglé rek réew mi yëpp day réglé li ñu comme ni ko seen bàkk woowu di wax li ñëpp bokk ñëpp dañ ciy mën a jot bu ko defee deux mille vingt cinq ba nag mu daal di dem ca euh, novembre ba organiser ci élection bu boobaa Ousmane Sonko day bokk Bougane day ñëw ñëpp ku man nit ñi xam ne man nga bu boobaa livre solution mën nga ko concurrencer ak livre euh, construire Sénégal mën nga ko kii ak livre bugaan bi ak yooyu ak yooyu seen kii télé yi comme lu mel ni institution bu mel ni RTS nii ñu ko toppee di ko laaj maanaam muy joxe trois minutes trois minutes te kenn mënu ci day mën a dajale candidat yépp ci benn débat organiser débat boo xam ne deux heures de temps lay durer maanaam def ko ci kii bi ak def ko deuxième tour bu dee am na ku nekk mu chronomètre leer leer la temps de minutes yi ngay am ak questions yi ak relance yi loolu la ñuy soxlaa RTS bu boobaa taxaw jamono dafa weesu fu ñuy demee seen national di topp candidat bu nekk après ñuy teg ay ay ay kii yooyu dañoo war a calaaseen calaantente te yooyu yëpp ah defoon organisation boo xam ne jël lu mel ni Sénat comme ni ñu ko def indee ci seen kii bi bokkoon na ci li mu wax comme euh, dafay autonome bu boobaa commission nationale euh, euh, kii nu mu tudd autonome la mais dañ koy indi mu indépendant bu boobaa. commission nationale indépendante nii laa ko waxee woon moo à man sawolof man loolu nag dama ko tuddee woon parce que gars yi dañoo gaaw ci mbir ñi may xam ne dama ko tuddee woon plan de saa pour l' opposition li moo doon plan bi waaye boobu dégguñ ma am ci ñoo xam ne biñ noppee dañ maa woo ci seen parti pour ma bokk ak ñoom ak ñeneen ak ñeneen lu mat ñeenti parti ci ku jégi ak yeneen ñaari parti yoo xam ne tey mën naa ne yeneen ñaari candidat yoo xam ne ñu ngi ci kii bi laay wax Euh, ñu ngi ci euh, mouvance présidentielle mais ku ma ci waxal dama naan la tànn naa ba pare xam nga lu ñu may wax ki ma tànn bañ a dem maanaam en cas wu Pastef bañ a dem comme dama dem fan 2019 waroon a voté PDS PDS amul candidat ma dem ci Pastef loolu lañ ma doon wax en tey ñi ma doon wax en dama leen di séen benn par benn ñuy ñëw di dugg. <laughs> di dugg ci coalition Diomaye mais moo tax man dama koy sant yàlla. kon loolu bi mu amee moo tax lii joomaay def tey damay wax ne ñëpp joomaay mën na nekk loolu ci ñoom ni joomaay nekkee solution ci Sonko ba solu kii nangam dañuy waroon a gore bañ ñaaw ci bon du ma wax sax gore dañuy waroon a ñëw doxal stratégie bañ a ñaaw ci mbir mi parce que am na ci ñoo xam ne bu ñu demee élection zéro virgule nangam yi dana bari de. no non du ma wax comme comme kenn wala ka xam naa ne daal vote utile ci laay woo sénégalais yëpp li tax nag sénégalais yi ma leen di woo ci vote utile. mooy mbir mi dafa cate dem nañu ba Macky Sall yàq mbir mi dat bi ñu waroon a am ñun rendez bi ñu waroon a am muy le vingt cinq sénégalais yëpp ñëw mu nekk feet Macky Sall xañ na ko xañ nañu ko pour ay euh, tappale yu mu def ba tappale yi dab ko muy pour fexe woon ba amnistie am am li fi am am muy décrypté crypté comme moo fi indi woon coow li moom moo ko defee loolu affaire am la comme amatuñu jot nañ ñu éviter le deuxième tour sénégalais yëpp laa koy wax man Saa Wolof maa leen ñaan Sénégal mhm. ñi nga xam ne amuñu woon intention votel Diomaye fii nag saa Sénégal bi mooy wax le citoyen muy ma réew bi mooy Sénégal dafa dugg ci ay guddi gu bët gudd tey bëgguma ñu bouleverser temps bi li ñu yàlla may ci temps bi te temps dafa cher dimbale leen ñu li laay war a suul dimbale leen seen bopp bës leen seen xol yéen ñi bëggul joomaay bës leen seen xol yéen ñi bëggul Ousmane Sonko bës leen seen xol yéen ñi bëggul coalition bi waaye bëgg ngeen Sénégal Sénégal googu ngeen bëgg éviter leen ko deuxième tour am ci élection yi parce que bu deuxième tour amee dana am lu mu dana am loo xam ne 2 avril bi nga xam ne moom la Macky Sall war a dem dana xaw a jaxasoo kon dimbale leen ñu ngir yàlla sunu borom mhm. fii damay wax ngir yàlla sunu borom mhm. a ah ngeen voté Diomaye voté utile Diomaye mën a gagné élection yi ci score wu de soixante dix pour cent wala bu fekkee ne sax xaw na ma nangam nangam na ko gagné plus de cinquante cinq pour cent mais lii l'idéal te ñu xam ne lii askan wi ñoo ko bëgg muy genre référendum muy voté leen joomaay plus de soixante quinze pour cent mu gën a légitime ñëpp ñu xam ne lii yëfu nit ñëpp la kenn ku nekk am na loo ci def ah ñu bëri seetaanoon ngeen bi nga xamee ne ñi ngi toroxal Ousmane Sonko ñu bëri seetaanoon ngeen weeru koor benn sénégalais bu liggéeyal Sénégal ba ngoon jot posté woon gisoon ne ñi ngi waaye di loo suñu ay àttekat loolu mu waxoon colossardisation ñu fekk ko jàpp ko toroxal ko fekkaat ko ci biir ñaat ko yeneen chef d'inculpation ko sax ci téléphone bu mu wax démb ne sàcc giñ sàcc boole nañ ko ci ngeen xam ne loolu yëpp du dëgg lii bis bu jàllee te wanewu leen ci seen bopp waxuma seen doom waaye yéen bu ngeen xalaatee ëllëg du ngeen ko baal seen bopp joomaay incha allah dana gañe mais dama bëgg mu gañe ak sénégalais bu nekk parce que bu gañee euh, joyante ya ñuy def kenn ku ci nekk war ngaa wane ne joyante yooyu am na loo ci def am na loo ci def mooy suñ borom digal na yonent yàlla moom ne yonent yàlla moom du wax ñu ne képp ku gis lu ñaaw ci yéen na ko dind ci ay yoxoom su ca tëlee dindi ko ci làmmiñam su ca tëlee fas ko ci xolam te xam ne loolu mooy gën a waaye di ci jëf kon yonent bi xaaru la yéen ngeen di def li gën a waaye di mooy fas sab xol Euh, le 24 bii ñuy ñëw mars Sénégal citoyens yëpp ñu am carte électeur yëpp yàlla may na leen ñu mën a dindi ci seeni loxo kon fexe leen ba dindi ci seeni loxo mooy dindi fa lu ñaaw dindi fi lu bon teg fi lu jub teg fi ku jub ñu koy wax Bassirou joomaay jaxaar fay suñ ko voteelee lépp lu mu def ëllëg ñun sénégalais yi daf ñuy engagé te dañ koy teg bët mu tegal ñu restaurer ñu état de droit indi fi justice yi ñu xoolaat ko defar Sénégal ci raay ba mu ne boy élection yee ca topp nag ci la ñuy dooga xool candidat bii la ñu war a kiyal wala ka waaye fi ñu toll nii benn problème la ñu am muy Sénégal benn saafara la ñu am muy joomaay nañu jël saafara boobu parce que malaat bi du taxaw di caddi caddi nga xam ne lii nga war a mën a yor reeni mbanta wala la yéeni reeni xay wala yéeni eh, yiir donte yiir daa wex nga naan nangam te mu wóor ne moo ci gën a efficace nga dem di ko jox li nga xam ne mën naa desee efficace te li gën a efficace jamono yi mooy jox ko Basiiru Joomaay Jaxaar Fay parce que keneen koo fi def bu faloo ci li ñu xam mooy mën naa lijjanti beneen mandat ba mu teekoo liggéey comme ni ko mag Sall def mais Joomaay conscient na ci lim def parce que waxi gor yi mu wax Sonko nee na bi mu ko waxee yenn yi mu ne ko sama digganteeg yow bu ko politique naree yàq ma ba politique maa jël doom tuddee la te bëgg mu nekk exemple ci yow ci nga nekk exemple ci moom moo tax bëgguma politique yàqu xoolal ma yi waxi gor day doy sëkk rek nga xam ne gore na ci joomaay bu bëggoon a war Ousmane Sonko tey li ñëpp yi am ñu ñàkk jom ñëpp li ñuy am mu am ko bu dee xaalis mu am ko maanaam Pastef te loolu moo ko waxee ci Diomaye noonu laa ko mën a waxee ci Birame Souleye noonu laa ko mën a waxee ci Abbas noonu laa ko mën a waxee ci El Malick Ndiaye noonu laa ko mën a waxee ci mbooleem ku nekk Pastef bàyyi Pastef tey lu bari la la mënoon a jural ci alal ñu goree bañ koo bàyyi. feneen fu ma bëgg a dugg ak rek mooy démb ba léegi ci Amadou Ba dafa mel ni Amadou euh, dafa seq ak ñaari nit ñoo xamante ne ni dañ koo xam ñu bokkoon liggéey muy Ousmane ak Bassirou Diomaye Faye dégg nga sax Ousmane Sonko si discours am mu ne Amadou yàgg naa def loo xamante ne nii mën na ko teg yëkkati loo xamante ne tey xam na ne lii baaxul mu ne ko tegal suuf Amadou Ba teg ko suuf donc moom Amadou xam na ko bu baax a baax a baaxul révélation yooyu nga xam ne Ousmane Sonko def na ko si Amadou Ba nan la ko jàngatee. bon li ma ko jàngatee lenn la muy Ousmane miy wax xam na ne bu mbir yi demee kawit Amadou Ba mën na cee mucc maanaam. parce que Macky Sall mi ko mën a topp parce que li mu ci man a xamit it Sall mën na ko cee xam tey ci muy nekk ci wàllu alal mais lenn mën na koo def mooy reeteet kenn nangam loolu mooy tax tawewal ci suuf te ku denc ci goronal du bëgg ku sëgg bu waa ji sëggee ba xam nag ba xam li nga xew xam li xew boo ne ko tegal day teg man moo tax wax jooju dafa yanu maanaa ci man Amadou Ba mu amul sens bu amoon sens day xale yi ko yàlla booleel day roy ci ñoom Euh, ñi ëpp ci may ñu may roy samay rakk lañ euh, man sama rakk boo xam ne ñoo bokk sax tur bokkuñ baay suñu baay yi baay lañ bokk mais mën naa ne mooy sama royukaay ci lu bari bu ma déggee dana xam boppam te du ci moom rek man awma problème yu maanaam nit ki war nga mën a nekk ak nit mu doon sa rakk wala mu maam nekk sa nawle nga xool li mu baax le ngay koy soppi man euh, ci àdduna lépp lu baax da nga koy roy Amadou Ba loolu la waroon def sens boobu la waroon a am lan moo tax mu doon mag ba pare Ousmane Sonko doon euh, fare la ndaw di def loo xam ne gën laa ragal yàlla est-ce que doo jàng ragal yàlla ci moom maa ngi lay wax léegi nii am na sama benn xarit boobu bi muy jàng français man boobu arabe laay jàng man daawuma julli bu ma daan Euh, football yi wala dara damay maa ngi farlu bi damay ñëw seen kër mu dañ dem euh, football ma xaaral ma julli cinq heures noonu la ko daan waxee cinq heures wax te moom ma ma ne maa ngi jàng arab sama ma koy jàng di ko di di ko pratique il war koo pratiquer kii jàng bokk yam kooku moo may dàq ba su may ñëw di foo sax mu naa ma xaaral ma julli affaire bi def ma kaa mais taxul ma am kiiwu dem julli ki doon sama sëriñ tay Mm. ma kii ma ne ko sëñ bi man julli laa mënul ci la commencé su ma buggee def sax di ma ko def ci la commencé boobu xale la nekkagul woon sama sëriñ boobu jokkooguma woon ci moom boobu ah mu ne ma da ngay bañ a forcer del xool waxtu wi la gën a jubu nga fexe ko respecté moom ba noppi boo noppee nga teg ci weneen wi la gën a jubu di ko def noonu di ko def noonu gis nga bi ma tàmbalee di julli man naa ne boobu mille neuf cent parce que boobu xale bu ndaw la ay quatre vingt dix huit yooyu ki may wax ni Cheikh Kayre loola tudd calaa laa di julli ba fàttaliku wu ma fu ma faatee waxtu yaakaar naa bu dee mas naa faat waxtu euh, wuma ma julliwut ci waxtu ma ci diggante bii nii pour ma générer tuuti matu juróom fukki yoon su ma nekkoon state sax il mari naa nekk stade sax Léopold seetaan mat Sénégal Cameroun mais bi julli jotee aw ma possibilité parce que fi ma dugg nangam gis nga ca kaw kii ya ca kaw weñ ya ca kaw noonu nangam fa laa yëg jullee maanaam ba nëga loolu xam nga ci kan laa ko royee ci sama xarit bu may àndal nit booy ànd ak say xarit seen expérience daf la war a jariñ seenu njub daf la war a jariñ ngay jubbanti sa bopp te loolu li may wax nii nag maa ngi koy wax ci sama rakk yi may seetaan yëpp wala ñi may seetaan yëpp te bëgg a roy gis nga dafa am benn bànneex bu nekk ci ragal yàlla loolu moo nekk ci Ousmane dafa am as su ci nekk wala mba bànneex bu ci nekk bañ koo ndawal naan as mbànneex sax am bànneex bu nekk ci ragal yàlla boo ragalee yàlla ba ragaloo kenn maanaam dafa am benn xeetu bànneex pouvoir suñ borom moo ne ragal leen ma ma xamal leen dana la xamal loo xam ne su du woon loolu doo ko xam man loolu mooy ñu baree ngi laaj sama secret wala yu demee sama secret loolu la damaa ragal lu dul yàlla jubuma de maanaam juba jubadi jàpp naa ne def naa ko am na ci lu may def loo xam ne sax xañ na nit ñemewu ko sañu koo def mais bu ma koy def mooy jàmb doyee danga koy def jàmm boo xam ne ragalul lenn lu dul boromam amul dara loo xam ne dama naan bu ma defoon dinaa ko ragal wala ci lu mu mën a nekk wala lu mu mën a doon ci àdduna bu ma la doon seetaan fii nga jékki-jékki saxla yi laaf naaw damay ci gis yàlla ne lu mu mënut amut moo tax maa ngi fàttaliku jommi bi may nekk xale dem ci dëkk bi ma lay wax amoon na lu fa daan jommil nit ñi di jommi di feebar ak yooyu am na yu nit ñi doon jàmbat ndekete naa ko ay yoonu yoon bi bi bi ma koy la nit ñi doog a xam ne lu ci laay doog a xam ne ndekete lii mooy lii tiital nit ñi pour wax la rek am na benn euh, xeetu picc bu ñuy wax xar géej nit ñi waaw buñ ko masaan a dégg ci dëkk bi dangay dégg ñu naan bu ñu xëyee dana am ku dee wala nag nit ñi dañuy tiit daal bu ñuy nelaw bu dégg ko comme dama daan tàmm di tëdd ci biti mas naay tëdd ci biti xar géej ji gi di ma romb ni xaw ma woon moom la quoi mais bi ma xëyee le lendemain sama may ndékki xam nga ñun bu ñu daan ndékki en famille la dañuy xëy sama baay bi ma yar sama magi baay la dañuy lel basang gi teg mm-hmm. euh, ndab li palaat bi teg ci cafetière bi ak yooyu ki aaye mooy segg café ba pare ñëw tegal ko sama papa jooju mooy séddale boo ñëwee na ngay nuyu toog daal ne siise daal koy nuyu daal di toog jigéen ñi ñëw ne siise sukk daal di toog kenn ku nekk nii jigéen ñi toogee nii góor ñi toogee nii ci nga daan xamee sax ki ki meroog nit ki nangam ñun chaque jour li war a li ngay joyante suñu suñu suñu ndabal ndékki ci lañ koy réglé parce que ci ngay xam li doxut ak yooyu sama benn tante bi mu duggee maa ngi koy saluer ku neex lay te te xoromu sama kal la nag mais sama xarit la xuja euh, saaxo daal ne biig de xar géej gi naa di ko jàmbat daal ma ne leen luy xar géej gi li doon riir ñu ma ne leen xoolal ëtt bi gis nga fee joxoñ leen ma ne leen xool leen tànk yi mi ngi foofu ah yow de yaa ma nangam ma mais doo ko ragal parce que bon xam nga euh, gone gi jaan day day day day màtte xañ na li nga ko xamut a tax ragaloo ko mm-hmm. mais yàlla tamit dana def ci yow dara loo xam ne am na beneen affaire bu ñuy wax njool weex lañ ko daan wax man ba romb naa ko bés ci teen bi ci penc mi ak benteñu gu kii noonu fi muy kii noonu ba jàll après bi nit ñi ngir expliqué ci laay doo xam ne man lii laa mais ragaluma ko feebaruma def mu benn benn benn affaire mais pour wan la ne ñàkk a ragal suñ borom xéewal gi ci nekk maanaam ragal suñ borom mm-hmm. xéewal gi ci nekk foofu nga koy xame maanaam di nga di nga mën a dara mën naa jommal nit te du la jommal dara dana la naqari dara dana la metti mais mën na bañ a manifester woo comme ni muy manifester woo ci loolu man Ousmane Sonko loolu dama gis ci moom dama xam ne dafa ragal yàlla maanaam dama jàpp ne dafa ragal yàlla ba damay xeeb sama bopp sax ragal gi ma ragal yàlla su may xool Sonko dama ciy xeeb sama bopp man boobu bànneex laa am te loolu laay gis loolu ma ñee Ousmane Sonko muy ragal yàlla loolu képp laa mën a ree ñee ci nit du alal ju ma nit ëppale. bien sûr loolu la voilà voilà lii nag dafay baax nit ñi xam ne du alal ju bari rek mooy def bonheur maanaam kaaw bu ñu demee ba jàllale lii joomaay gañe Sonko am li bëgg maanaam sénération bii ñëw danañ xam lan mooy njariñu liggéey dañ xam lan mooy njariñu jub dañ xam lan mooy njariñu wóolu suñ boroom xaalis dañ koy lijjanti kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti sens bi wolof doon jox euh, mag du fecc yàlla naa dee sax wala bu mag di naan ndox mu tàng suukar saa wax sax ñu ngi ko jël joxe ko ci wàllu ñàkk jom te fekk du woon loolu ay bala nga ne naam ne yooyu dafa am fu ñu koy waxee maanaam tey mi ngi mel ni Ousmane Sonko ñu yeggoon tey ne euh, élection xam na ne moom su tegul woon ay. élément am yu mu mën a taxaw nekk candidat procès Pastef day daanu te bu procès Pastef daanoo du mën a liggéey réew mi bala nga ne naam nefa foofu nga koy dugal maanaam mag du fecc yàlla naa dee fan nga koy dugal maanaam kon da ngaa war a gëm yàlla waroo topp alali àdduna rek ba dem ba dem ba ba ba ba ba bañ a jaamu sa borom loolu mooy dëgg intérêt boobu foofu rek ngeen ko war a ko war a dugal mais baat yi fi ko wolof di dugal sax da gis dañ koy yóbbu ci feneen nga gis ay nit di ko wax naan ay yooyu sax moo ñuy kii non non fekk na sens ñu ko war a jëlee fa lañ ko jëlee wut da ngay gis euh, ñu war a dugal maanaam xeeb nga xànc mu takk saw say daal fay dugal xeeb xal mu lakk sa dàgg te ñaari bokkuñu lu ñuy signifier dañu xaw a dañuy mottalante nag moo tax baat yi faaw ñu koy dugal fi ñu ko war a dugal. d'accord beneen bu ma la bëggoon laaj xam naa bi moom si Amadou Ba la foofu laay foofu la ñuy tëjee aussi tamit parce que ba léegi Ousmane Sonko ci biir kàddum mel ni ñu koy wax ne Amadou Ba moo gën a danger Macky Sall parce que ñu bëri a leen ñoo xamante ne si si APR lañ bokkoon ci xaalis la leen jëndee. loolu moo gën a waral sax lu indi problème am Macky Sall ba Macky Sall wóolul ko ñi naan du candidat am ñi naan mooy candidat am ñi naan du candidat am lan ngay ban jàngat ngay def si loolu est ce que Amadou Ba ba léegi moom mooy candidat mu euh, président Macky Sall. non moom Macky Sall dañu xaw a yam jikko mooy jaamu seen soxla dañ ko niróole xam nga Amadou Ba bi mu toogee bay wax te loolu mu mu mu wax ne sëñ Mountakha ne ma sa kilifa da nga koy bàyyeeg boppam bàyyeeg ko sa bopp yooyu bi mu ko waxee ma ne ko. man ma weddi ko ne li mu wax waxul dëgg. Amadou. voilà. sëñ Mountakha waxu ko loolu. bon damaa jàpp ne sëñ sëñ Mountakha wax ko loolu aw ma ci kii mais li ma jàpp mooy xanaa du ko wax loolu loolu jàpp ma ne dana ko taxawal di ko di ko wax. ah bon yàllaa xam mais tout cas bi mu koy wax gëwuma ko. Hmm. loolu moom mooy li am. Hmm. te ba léegi gëwuma ko. mais loolu mu wax benn xeetu yeeru la maanaam dafa nax Macky Sall maanaam xam na ne Macky Sall maanaam Sénégal gi lim jàppoon bu njëkk. mooy boo nekkee candidat France wala boo nekkee profil bi bi France tànn moom ngay gën a am sens mu bàyyi mel ni ku bëggul dara mel ni ku bëggul dara même gars yi bi Macky Sall taxawee ne ku bëgg na wax nanga wala ngeen ngeen vocal ma ko ngeen message ma ko bopp la moom message ko dafa toog ne ci yàlla. voilà voilà non dafa wax ko dara ay ñoom Ablaye Diouf Sarr ak ñeneen ak ñeneen ñëpp. Macky Sall xam na seenu bëgg mais pas Amadou Ba mais def ko jaar ci collum kaw mi dem jaar ci France bien sûr Macky Sall bi mu bëggee def troisième candidature te France d'accordul lu tax France d'accordul parce que ñoom dañoo jàppoon ne Amadou Ba mooy profil idéal te xam nañ ni Macky Sall bu demee Sénégalais yi duñ ko fal maanaam duñ ko falaat mën naa jaral nit ñi deewal naag bu ñu paree ñoo France ak yépp la ñuy boole sànni ñu imposer ko. mu mu mu bañ a def candidaté Macky Sall dëgër bopp continuer ca ngay gis bi mu barikaatee Sonko nga gis euh, ay ñu yebal ay émissaire France ñu ñëw waxtaan ak Sonko Macky Sall yëg ko xoolam neexul RFI ñëw France 24 interviewé Ousmane Sonko loolu neexu leen ñoom ñu jël utiliser nag mu utiliser Ousmane Sonko pour def pression ci Macky te loolu bi ko France defee maanaam jàppee Ousmane Sonko seen idiot utile mais tamit xamuñu woon ne Ousmane it da ciy gagné Ousmane suy la sa bañ leen ak kii wax ak ñoom ak yooyu. mais biñ paree loolu la ñu jël def ko pression Macky Sall xam ne lii mënatul jàll. mu daal dem jubóowaat ak ñoom ci nga gisaat France bàyyiwaat Ousmane Sonko lase ko total parce que France moom ak lu mën a am mooy Sonko gënalu leen dañuy maslaa rek. léegi nag bi Macky Sall nangoo lool ci lañ dem ba bi tànn jotee Amadou Ba ñëw en pole position. ci digg mag mbokki socialiste mooy parti ba mu jaaroon. AFP parti socialiste ak ñooñu ñëpp Amadou Ba mooy seen candidat kon biir APR APR Amadou Ba du seen candidat wala li ëpp ci APR maanaam Amadou du seen candidat mais bennoo moom li ëpp ci bennoo APR maanaam li ëpp ci bennoo Amadou Ba moo doon seen candidat te loolu neexul Macky mu mujj xam loolu xamalu ko lu bari tax mu xam ne li baaxul wala nangam moom nag ni muy defee mooy jënd nit wala nangam nangam loolu day xaw a kii bon li ma wax ci Amadou Ba kii na te maa ngi waaj a dem ci campagne bi nii appel bi ak yi bay ma sañoon daal ñu ñaanalante fii. <laughs> jërëjëf waa kay. mais dafa gis nañ ko. mu ko def ko mooy ci micro RTS bi. waaw leen Bassirou Diomaye Faye ko après mu nangu ba RTS si loxo Bassirou Diomaye fay jox ko ñeneen loolu dafa dafa dafa wóolu ba RTS moo tax muy def loolu. non no pour man message foor la te loolu mu def nag wax dëgg yàlla RTS ak ko def defoon nañ ko. defaat ko bii weesu wax dëgg yàlla tey RTS ni mu doxalee dara rafetu ci man gis nga ma keroog jël naa caméra nu RTS sëf ko xam nga lu tax ma jël ko parce que gisoon naa ne booy ci beneen moto la yéeg booy tàmbalee yuuxoo te xam naa ne jàpp naa ne rus nañ ma am na ci koo xam ne te effectivement noonu la mujj demee ñu bari da ngay romb sax buñ commencé di bu ñu xoolee ah saa na ah, saa wolof nangam na daal lay bàyyi mais nag gis nga booy leble leble lu rafet loolu mooy li gën a am solo loolu tamit signal fort la pour man du sax fayantoo mais dafa am benn signal bu muy def parce que dafa am yëfi yabaate yoo xam ne service public waru ko def maanaam bu doon privé Ousmane ko def ko damay dal ci kawam te dama koy wax rafet donte ne lii tey rafetlu wu ma quoi pas trop mais du lu ma ñaawlu trop trop trop maanaam dama ci nuancé parce que dama jàpp ne signal fort la boo xam ne RTS war na ci doxee màgg même après su joomaay gañee tamit opposition yi ñu yemale leen ak waa Pastef képp loolu moo tax man li mu def démb Euh, du ma ne dama koy encouragé de mais du lu ma ñaawlu parce que c'est un signal fort bu fekkoon daf ko def TFM nag wala mu def ko RFI non non pas RFI wala mu def ko beneen beneen beneen kii privé voilà ba bu nekkee scène nationale France ak RTS laa yemale mais bu doon scène privé la mu def leen ko daf may naqari mais comme RTS la ko def loolu mooy signal fort la parce que suñu yëf la ba pare ñu taxaw di ko di ko kii sa yëf bu la neexee nga gedd bien sûr sa yëf loo xam ne dañ la ko doon jox ba pare joxuñ la ko na mu rafete di la ci toroxal wala nanga bu la neexee nga gedd ko mais par contre bu doon yëfi jàmbur nag koo xam ne par exemple parce que RTS suñu yëf la ko ala bu doon yëfi loo xam ne TFM wala yeneen ak yeneen su ko defee damay taxaw ne Ousmane li mu def du noonu mu ngi mel ni démb El Malick rek bi mu paree ne ñaari question ne BBC ak nangam loolu dama ko ñaawlu ci boppam loolu loolu erreur monumentale mënoo di xeex lii ba pare ñëwaat taxawaat di di di di di di def loo xam ne nii. Mm-hmm. kon yow bu ngeen fal woon média étranger yi ngay privilégié. loolu loolu lu ñu war a xoolaat moo tax man j'aime très bien mm-hmm. kii laaj noonu ba pare loolu tamit sa gis naa sa mbokki journaliste am ci ñoo xam ne bi waa ji laaj. Mhm. pression la nit ñi bari nañ. Mhm. xam nga mën nga di yegg si sax parce que li ko mën a expliquer bari na. Mhm. mi ngi koy laaj noonu di xaw a dër ak yooyu mais question bi dafa am solo. parce que laaj bi ñu bari ko doon xeeb mais buñ ko tontoo xoolal Ousmane Sonko bi mu jëlee temps ba di ci ngay xam ne kii li mu laaj. munu ko woon a ñàkk laaj pourtant am na benn étranger bu fa ñëw ki kenn ki. ki mujj wax noonu li mu fa wax du laaju dara amul benn sens. lu mu lu fa laaj loolu tamit bu ma koy wax El tamit na nit ñi tamit askan wi tamit nañuy euh, fonk li ñu moom. man gis nga ma dama man nationaliste la yegguma ci nationalisme nag comme fi Tahirou Sarr yegg ak yooyu parce que man euh, man ak Ousmane man boo xoolee Tahirou Sarr laa waroon gën a jegeel mais Ousmane Sonko laa gën a gëm parce que man panafricain la donte ne dama jàpp ne suñu frontières yi dañ ko war a euh, sàmm ba pare mais dañu war a ubbiku ci côté mais kenn ku nekk li war a jiitu na wara jiitu li ñu war a fay nañ ko nañ ko nañ ko war a fay bu ñu boddu compté mhm. mais tamit foofu tamit maa ngi waxaale ne mhm. les Mauritanien bi bëgg a ñëw doon Mauritanien pare di ñëw di voter Sénégal pour mm-hmm. voter kum mën a doon mm-hmm. wala olof ba nekk Gambie mm-hmm. pour bëggoon a ñëw voter wala séeréer ba nekk Gambie ñëw pour bëggoon a voter Diomaye wala pël ba nekk gine pour bëgg a voter Amadou Ba wala nàngam nangam loolu ku ci sénégalais yi xàmmee nañ la duma ah maa la ko wax non loolu ruube la gisuleen sénégalais ñuy dem di dem Mali di fa voteel nit parce que dafa jegeel wolof yi wala wala ñuy jóge fii di dem Guinée di fa nit parce que day pël wala ñuy dem Gambie di fa voteel nit parce que day soose. dafa am loo xam ne maa ngi wax sama mbokk yi man sama yaay pula Haalpulaar euh, Oumy Ba damay wax ñi koy nar di ko def dañ ci génn nañu bàyyi élection Sénégal dañ ci génn man de saa wolof ku ma gis mu wóor ma ne yow. waxuma nag ki jël nationalité Sénégal fii comme ni ko Ousmane Sonko waxee boo ko xasee jël yaa ngi mën a yem ci réew mi parce que am na ñuy dem di jël ay nationalité France wala nangam nangam bu boobaa ay français lañ. Mhm. mais ku ñëw pour ruubee ma xàmme ko bu ma la duma dinaa la duma. mais nisaaru fraude lay def ko. wa voilà fraude boobu. Mhm. bëgg sa réew bokk na ci jëm yàlla jihaad la. kooku boo jàmmaarloog moom ba def ko ak noo mën a jàmmaarloog moom. Mhm. ak noo mën a jàmmaarloog moom. da ngaa sahit def li war.